Ahmed Aïdara bismillah guy guy daanu day ah day bëri coow lool tribune yéene kaay ne faatu bi xam ne nag maanaam fàllu seen daal dina ah. ma ne la procureur ndooy mujj naa na ca mbir ma ma la Ibrahima Ndooy procureur day waaw daal dinay xam le ne am na ci ab enquête woo xam ne ubbi nañ ko dee te gën a sori nag waaw dimanche lépp dina leer allahu akbar réew mi ma ne la procureur ndooy day waaw daal dinay commencé rek lu na kon ni nga boog sobli ne procureur ndar gi googe Ibrahima Ndoye waaw daal dinay dëggal ne gis nga Fallou Sène mi bal lañ ko dóor mu dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maa la ko wax ma nee la bal lañ ko dóor ci naka laa la wax ci naka lañ ko ko dóor Ibrahima Ndoye yamu ca ndaxte monsieur le procureur nee na ñi nga xam ne nag maanaam ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu yëpp déglu nañu leen ba mu ñaar te jàpp leen ne nag maanaam gendarme di takk der yi nga xam ne ñoom ñoo duggoon na ca université googu doon fa def intervention ñëpp danañ leen kon déglu loolay dëgg wal fajri ne waaye procureur ba day waaw daal dinay dëggal ne ma la balu fetal ci boppam kon lañ dóor Fallou Sène mi la mu wuy ji boromam waaye nag lëf la day xam nga lan moo ca doy waar waaw bizarre gendarmerie biir la gendarmerie enquête contre la gendarmerie loolu nu mën a nekke ma ne la gendarmerie day lañ enquête ba nag ngir mu enquête contre gendarme yaa eh way samba mbéte enquête ba kay waaw gendarmerie ci boppam la wax waaye jàpp leen ne procureur Ibrahima Ndoye day ah nee na nag bu dee ab kon moom moo rey fàllu day jàpp enquête boobee nag man mënuma ca dara je suis incompétent uh-huh. waaw waaw tribune yéene kaay ne dëgg la parce que procureur de ki nga xam ne maanaam moom moo rey fàllu day ab gendarme la waaw ma dossier ba ca boppam la dañ koy mujj jébal procureur de la république lé nee ma sëñ Bassirou Gueye ci Ndakaaru njaay jël jóob waaw waaye démb day ndar tàng na la ko tijjee kaa ne moo taxit aduna day moo wàcc ca kaw président Macky Sall laa la wax ginnaaw faatu bi nga xam ne nag maanaam kon fàllu seen mi lé daal dañu koy faatu ma ne la étudiant yi ah nee nañu rap université ba que danoo sos kàcc fen wax loo xam ne nekkul dëgg ne étudiants yi ñoo doon song gendarme c'est pas vrai safaan waa am kay di contraire bi gendarme kay ñoo song étudiants laa la wax ñoom étudiants ndar yoo yee yemuñ ca parce que daal dina ñuy xam le ne recteur ba day ak Ibrahima Diaw directeur CROUS waaw ma ne la fa tegati sa dànk laa la wax déclaré nañ leen persona non grata kon te kër ga université ba te nag bu dee dese nañu a démissionné ba noppi nag daal dinañu sàkku day directeur ba ah na tekki ndomba tànkam laa la wax africain xamul loolu Mor Ngom bu APR nekk tamit ministre conseil day ca bëgg su waaw nee bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax am na loo xam ne nag defuwul de il y a am na lu defuwul ci lëf li looloo tax nag ba président Macky Sall day dafa war a jël nag ay matukaayam di ay responsabilité waaw waaw Idrissa Seck ne du ko jël ah waaw ndaamal ka joor Idrissa Seck ci dootu ñu nangooti benn yoon ak di jéegi la ñuy rey nag suñu beneen doom mu ci këru àdduna Abdoulaye Sène ñuy bàyyi Fallou Sène mi rey ci enquête yéen waaw nee nañu def nañ musiba rey nañ sama yaakaar rey nañ kon sama doom ja bàyyi ba mu mujjee jokkoo man ca téléphone waaw daf maa jéggalu baalu maax ba noppi ne ma bàyyi ma ko Sène mu ne ma ñaanal ma allahu akbar yéen gi ne si day ma ngay tàkk di jëf-jëfi maa la ko wax la siège su Mamadou Diop Decroix ak waa AJ waaw nee nañu ne tey ñu wax leen lan moo tax ba président Macky Sall mi lee jël fitna violence miti di dóore bàyyilee ko boppam songu jàngalekat yi rek ak élèves yi ci weeru avril ñëpp teg seen ba ci deew fàllu seen mi laa la wax li tax Macky Sall daal jël fitna rek ak di dóore rek dëkkee ko dara waralu ko lu dul Macky xam na ne jeexal na nguuram jeex na pour ñu falaat ko ci mim réew saay bu xëe falaatam a ndaxte nee nañu xoolal leen ma Sénégal màggatum juróom-ñeen fukki at la foo laal day midi koom-koom ngaa ngi nii lu yàlla xam doy na dundinu askan wi social bi moo waxaale ma seen i mbir atu politique baa ngi nii di jax-jaxi jom ak rasu amatul ci réew mi ndaw Xalifa Sall yi day ci yéene kaay gi waaw nee nañu lii lépp Macky Sall la ak Mary Teuw Niane amul keneen waaw waaw nga xam ne nag maanaam kon bourse yi day dañ koy tardé bourse waaw waaye section générale d'état nañ ca mbir ma de laaste Macky Sall leen dugal ca ma waa IGE maa la ko a xam lan mooy ndayu de laa la ne gis nga yorinu bourse yooyu waaw ma la lëndëm lëndëm gi am sax mbir mi doy waar bourse étudiant moo ni war am lëndëm lëndëm nag ah libération yéene ne waaw parce que nguur gi day génnee na juróomi milliards depuis fanweeri fan ci weeru avril ba léegi nii te xaalis ba ca boppam génnee nañ nguur ga waroon a def ak waa def nañu ko ko waaw lan moo tax nag ba bourse yi kon ba yemu ca parce que libération nee na Macky li ñu ci war a def non man sama bopp laa la wax danaa ci jël samay matukaay ba mu leer nañ ëppalaw <laughs> buur démb dóor na ca taabal ja de maa ko Papa Thione Jong ak étudiant grand parti ci tribune kaay ne ñin dañoo xamul Macky Sall mi lee lu tax mën a saafara kon boursu étudiant yii demoon ni day ma ngay neexal nag ne mu bokkal kon heure politique ba clientèle politique waaw xoolal ma au conseil bi Oustaz Tanor Dieng jiite loolee ban njëriñ la conseil économique social environnemental ba étudiants yi amuñu lu dul seen bourse su ndaw si eh, taxawal ay kër yoo xam ne ay milliards yi milliards Omar Faye leeral askanu ci yéene kaay gi ne Fallou Sène day fanweeri dërëm a tax ñu rey ko maar tey la ilaha illallah cent francs Omar Faye ne waaw palaatu lekk ba fanweer lay jar di ne day lekk ñu ne doo ko fi lekk te lii moo xewoon ca réewu arab ya dee printemps arabe waaw am commerçant boo xam ne dañ ko ne trottoir bi doo filal jaay mu daal di daal boppam laa la wax yaa illallah danañ dem ba baaraay waajur yi kenn dootul bàyyi sa doom mu génn ci mbedd mi laa la wax balaa muy génn dem buy dikk ñu indi lekkee su néew maar tey daali birima ci tribune kaay ne ginnaaw Fallou Sène mi ñu rey kat moo ciy topp ah, tour mardi daali waaw parce que Balla Gaye lañ ko rey étudiant Mamadou Diop 2011 lañ ko rey étudiant Bassirou Faye 2014 lañ ko rey étudiant Fallou Sel Milé 2018 lañ ko rey étudiant te bu leen fàtte nag Omar Blondin Diop 1973 lañ prochain kan moo ciy topp alaaji nguuruk muut mbaa mot kooku yàlla donga ko yoyool comme que nag moom yàlla la xëy di ko di suñuy soxla ak a toog a kaas asamaak nit ak i noppam